ahlan bikum njiiti réew mi Macky Sall door na campagne 2024 bi allah info yéene kaay moo ñu ko xamal ndax fa fas yéene xamal tournée économique lépp ngir dalal meru lenn ci askan wi ndax jafe-jafe yu du xaddu jeex yaw seetal fay dem diwaanu Kolda diwaanu Kaolack Ndangaan diwaanu Kaffrine ak diwaanu Fatick conseil des ministres décentralisé yi fañ ko fay xamal waaye yéene kaay bi fa jàpp ne njiitëram Macky Sall fay xett boobaale maanaam yii yëpp ay kii la dëgg ci la nekk Le Soleil yéen dëggal ko waaye fa yokk ne projet bu mag bu mujj bu njiitira Macky Sall bëgg a xamal Sénégal bala moo jeexal nguuram gi mooy autoroute Dakar Tivaouane Ndar diiwaanu Ndar googu nag Amadou Ba candidat njiit mi fafaa fas yéene dem moom it tournée boo xam ne presque moom it campagne 2024 ci la nekk fay xett moom boobaale Walf Fadjri yéen ne waaye dund gu cher gi jafe-jafe askan wi narta baax ci gisuñu ko mooy dund gu cher gi yaaw fa ngay xool Dakar presse yéen a kaay lañ ciy tëram Macky Sall nag pourtant mi ngi ciy jël ay pexe de ndax wax na fa gouvernement bi ñu xoolaat njëgu ndox mu cher mi njëgu courant bu cher bi njëgu téléphone gu cher gi ba ci internet bu cher bi ñu fexe nuñ ko wàññee mais ce que yéen na ko yemut fa de fa digal gouvernement bi ni ñu war a def ak sénégalais yi yaaw seetal fa leen a wax yéen samay ministre faa bëgg ngeen wàccee seen bopp jaay taar gi ngeen nekkee faa bëgg ngeen seen bopp ca jafe liggéey looloo gën si yéen leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne àttekat ba ñuy wax saaba si fay ginnaaw bu mu àttee Ousmane Sonko ne nañ ko dugalaat ci liste électorale yi këyit bay dëggal loolu muy notification ba daal dina koy génnee ba yónnee ko préfet bu Ziguinchor laa si ne kaay ne fi toll nii kay leer na nañ ñi Ousmane Sonko dugalaat nañ ko ci fichier électoral bi turam ma nga fa waaye nag ëllëgëm ngir mu mën a bokk ci wata 2024 yi mi ngi ay njuumte yoo jàmm Ousmane Sonko ci seen kaw Vox Populi na ko moo taxit àttekat ba moom joxe na notification ba bés bi yéene kaay na ko fi mu toll ni kay Ousmane Sonko mën naa dem jëli nii nag affaire bi jeexagut de mbiru Mame Mbaye bii mooy dégg bu mujj ngir Sonko mën a bokk ci wote yi turbine yéene kaay dëggal ko ne Sonko kay ngir mu bokk ci wote yi ba léegi wóoragut de ndax xàtteeb diggante moom Mame Mbaye fa mel ne fa la gaañu bëgg a jaar de man ma jaar ci enquête yéene kaay ngir wax leen yaaw seetal waaye yeewi askan wi fa ñoo wan ginnaaw xalifa sàll seppi ko ñu ne déetawaay aliyem bi nga xam ne moo di sëriñ Moustapha Sy wan na ginnaaw xalifa sàll ñu ne déetawaayeeti ñi nekk ci gauche bi ñoom itamit wan nañ ko ginnaaw kon wote yi di ñëw xalifa sàll moom kese korte ndong loolu mën na ko may ndam ay farandooram ne waaw te faalandi xamal am na ay ralliement yu bëri ñu ngi ñëw ci xalifa sàll te gis nga parrainage bii candidat yu bëri duñ jàll léegi <laughs> seen parrainage ba ñàkkante ca lañ ko xamale fa xam ñoo xam ne fa ñoo fay lamp ya pompe fa ay gaz carte ga jaxasoo turbine yéen kaay ñu ko xamal yor yor yéen kaay ne diggante njiitëra Macky ak Amadou Ba mii fa mel ni daal kóolute confiance fa des seen diggante de l'évidence yéen kaay moom fa ñoo xamal ne fa xam ñoo xam ne njiitëra Macky fa leen a wàcce leen ci poste yam leen joxoon waaye boo moytul ñooñu mu dàq nag ñoo nar daane nguuram gi bokk xamal na maître Nafissatou Diop Cissé responsable ca Kaolack ndangaan démb fa xamal mobilisation bu mag ay militant ak militantam ngir ñu dëggal seen ànd ci gannaaw njiitëram Macky Sall liggéey tamit ca parrainage ba ngir fal Amadou Ba 2024 Pape ma yoroon kàddu maître Nafissatou Diop Cissé fa wax ne mi ngi xoo mboolem responsable benn bokk yaakaar APR yu Kaolack ñu liggéeyal candidat wu njiitëram Macky muy Amadou Ba ngir mu xam ndam moom maître boo xam ne ay farandooram na ñoom dakkal benn bokk yaakaar na loolu faa ko ñaawlu ànduma ci te bokkuma ci ndax loolu wàllu santas la te njiitaram Macky ku ko xam xam na ay santas yi faalawut ko sax te jamono bi du jamono jooju fa ña war a fàtte suñu intérêt bopp yi mu wëlbatiku moom Pape Sarr rafetlu taxawaayu maître Nafissatou Diop Cissé ci askanu Kaolack ndangaan ak ci wetu njiitaram Macky soxna Buri Njaay nag moom ba jëlee kàddu fa wane ne soxna ndangaan ya ca gën a yoo xam ne takk dari fañ koo jàpp teg ko loxo dorogoog ay garab yu bon ak lépp njëg laa nga toll ci ñetti milliards six cent millions leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne assemblée nationale seen bureau bu bees bële njaw fa des aw xambit ndax fa ñoo ñàkk respecté nañ séddale poste ya si du quotidien moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Basiru Ba bu aar suñu moomeel mooy ne baykat yi ren njaayum gerte gi cent milliards subvention moom lañ soxla far force nag ndax baykat yi fa ñoo sonn fa ñoo dee libération moom fa ñoo xamal nag benn taleb saw fa nekk giraw de la fin ginnaaw bu njiitam Ousmane Sonko moom tàmbalee grève de ngir jàppale soxnay Pastef ya nga xam ne ñoom fa ñoo nekk grève de li fin a gut nag maanaam li jeex a gut xaxarante bi dox diggante Ngaaka Blindé ak Aara waa ahlu birik léeg si ko yéen a fa xëy di laajte na waa ñoom fa ñuy clashé wante wala Habdil la ñoo ko déggoo ngir am xaalis donte nag Aara ahlu birik ñoom ne ñoo gàddu ndam li fi mu nii wane ne ñoo mën Ngaaka Blindé ñoo ko dàqarab fuuf Ngaaka chauffeur ba amal moo tax mu rey xale ya ah, yaaw fa ngay xool fa doon doublé foo xam ne kenn waru faa duble saaraar dem na paaja rey xale ya pare doon jéem a daw ñu jàpp ko la mu jàpp ba wax ko moom l'observateur mooy barça ak barsàq bii jigéen ñi nga xam ne fa ñoo mës a dugg ci gaal yi dem bitim réew ñoom la jox kàddu ña ngay nettali mbir yu garaaw ah, yaaw seetal xab soxna fa wax ne man sama borom kër fa maa takkal wujj mënuma koo muñ ngir fayantoog moom moo taxoon ma dugg ci gaal yi dem beneen jigéen man faa dugg ci gaal yi ba ca biir géej ga ma tàmbalee gis mbaax dañoo xotti seen yére yi ngir ma mën a ko suturloo beneen soxna ne man moom bi may dugg ci gaal yi fa fekk maa ngi hëmb bañ demee ba ci digg géej ga rek faa tàmbalee matu ngir wasin xam doom waaye xale yu góor ya ñoo ma doon rewele maanaam ñoo ma doon dimbale yàlla dogal nag sama doom ja ba mu juddoo xàndut ak bakkan fañ koo laxas sànni ko ca biir géej ga aay mu ngóog nag ndeke jigéen ñi xam nañu dëgër fit ñeme bay dugg ci gaal yi dem bitim réew man dafaa foogoon ne jigéen ñi moom Nicaragora gi rek la ñuy topp ndeke ñu ngi ci yi